moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma moom Cheikh Mamadou Moustapha kenn ku nekk xam euh, diggante Cheikh Mamadou Moustapha ak jumaa ji euh, tey jii nag mu ñëw fi ànd ak euh, sëriñ Babacar Mbacke mu sëriñ Njoogu ñu ñëwee fii ay taxawaay yu bëri taxawaay yu bëree bëri ndax ñëw na fi ngir jëmmi sëñ Touba mi nga xam ne mooy maam bokk ci ak Cheikh Moustapha sëriñ Babacar Mbacke ñëw na fi ngir loolu ngir jëmmi sëñ Touba waaye nag ñu ñu ñu ñëwal ñëwaaleel fi tamit moom it kilifaam di sëriñ Moustapha Ndiagne kenn ku nekk xam na ne euh, digganteem ak daayira Muxaddamatul Xidma barki dem rek bi mu déggee takwin bi ñu def fii di former imam yi ak noddukat yi euh, ci saasu dafa dafa dafa yónnee ki yor jumaam jële mu woote man mii la jot téléphone yabal ko mu ñëw participer ci takwin bi ba noppi daal di digle ñu jël ay adresse am ngir ñu fe ñu former ko parce que da wut sax fu mu ko defee boo tax initiative yi bëri yu daayira bi def da koy rafetlu rawatina li aju ci wàllu xam-xam kon ñi ngi koy sant bu baax a baax euh, di ko yéemu ci tamit euh, saa su day indi ñaxam ak alalam di ko def ci liggéey bi kon sëriñ bi ñu ngi lay sant ci wàll googu bu baax di ko ñaanal di ñaanal mboolem ay rakkam ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ñoo topp ci ginnaaw ginnaawam di fédération daayira Ahibahil Khadim euh, di la sant bu baax yow ci teewaay bi waaye beneen casque bi tamit nga ñëw fii euh, doon président conseil départemental bu bu Mbacké ànd ak Serigne Babacar mii tamit bokk ci conseil départemental bi moom it ngeen teew fi euh, en tant que autorité ci euh, kilifa ci département bi liggéey bu mel nii di fi am ci jumaa ji nga xam ne askan wi lañ koy liggéeyal te ngeen xam ne yéen da ngeen a bokk ci ñi nga xam ne dañu leen a fal ngir ngeen taxaw askan wi ci lépp loo xam ne lu aju ci wàllu social la lu aju ci wàllu ndimbal ak lu ci wàllu seen nekkin wu rafet kon xam naa ne loolu nga xam moo tax yow it saa su nekk at mu jot euh, da nga ñëw indi euh, sa barkeelu ci liggéey bi ngir liggéey bi nga xam ne ànd ànd nañoo yow nga visite ko gis nga liggéey bi ni mu demee euh, jaadu na nag suñ noppee nga fekke waxtaan yi fekke ndogu yi gis mbooloo mi ñu taatal la suñuy kàddu nga sànni ci ay kaddu ni nga xam ne moom nga gisee liggéey bi sëriñ bi ahousubillah min shaytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah barakatuh naa bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sant sëriñ Touba ñu ngi leen di nuyu eh, leen ziare bu baax leen ndokkeel ci weeru tedd yi nekk nii di jiital ci suñu nuyu ak suñu ziare eh, kilifa yoon wi Serigne Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ay naalam ay mébétam boppam ak way yërëm ya ak magam ya màggale ko ànd ko taalib yëpp ginnaaw loolu ñu ñëw fii comme ni nga ko waxee léegi ñëwoon ziare si ci turu suñu kilifa sëriñ Moustapha Mohamed ñu yabal ñu fi ñu indil ko bàkkeeloom ak ziareem ak kàddu cantam ak ngërëmam jëm ci daayira bi ngeen yor nii muy daayira bu am solo boo xam ne nii daayira bi ñëpp la ndax liggéey bi muy def liggéey yëpp képp képp kuy jullit wala nga taalibi rek liggéey bi war nga ci gis sa bopp. ba tax na kon sëñ Moustapha moom lépp lu ñu defal lislaam rek wala sëriñ Touba rek jàpp na ne moom loolu kenn war ko ci jutu ndax moom nee na ba tey jumtukaay sëriñ Touba la te loolu lay dox loolu lay wax saa su nekk. ba tax na kon lu mel nii bu amee ci dëkk bi war na euh, mu di fi yónnee di fi yable di joxe aw ñaqam ak ak barkeelam ak addéeyam ngir jëme Serigne Touba loolu tax mu wax mën naa fi ñëw teewal ko fi amoon yéene boppam ñëwal fi boppam comme ni nga ko waxee léegi ndax bu sañoon muy ànd ak yéen liggéey bi ci kaw loolu kon ñu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla bu baax ba lii ngeen di def mu nekk liggéey wax na liggéey jàmm yàlla bu mag a mag la bokk na ci jàmm yàlla yi gën a kawe. ngeen def ko ci barab bu sell barab bu tedd ci tubaa rawatina fi ci jumaay tubaa ngeen defe ko ci waxtu am solo mi waxtu koor kon mën nañu wax ne jaamu yàlla gu rëy la te am nañ lu rafet ne Serigne Touba dana ko nangu ndax lii bëgg-bëgg sëriñ Touba la ndax naa ko sànq lépp lu baax rek Serigne Touba ko moom te lii bokk na ci jaamu yàlla yi gën a gën a kawe kon loolu su amee képp képp taalibe rek. jàpp naa ne war nga mën a dugal sa loxo ci mbir mi loolu la sëriñ Moustapha xam ba tax na fas na yéene incha allah lépp lu ngeen nekk rek mu jëm ci wàllu liggéey bi liggéeyal sëriñ Tuubaa la dana ko ànd ak yéen bu soobee yàlla bokk ak yéen leen ci tamit ngeen saabaram dafa leen ci ndam la ca topp tamit mooy ma ñëw fa tamit ci turu conseil départemental Mbacké bi nga xam ne yàlla dogal ñoo ko jiite ñu ànd ak suñu Babacar mi ak yéen conseiller ñëw fi tamit ñëw rafetlu liggéey bi indi suñu barkeelu ak suñu cofeel wane ko bu baax a baax am nañ ci nag lu kawe suñ njort ci ci liggéey bi ndax daanañ ko dégg daanañ fi yónnee waaye nag ñëw bi tey jii moom daf ñëw wan lu rëy rëy rëy rëy ñu am ci xol bu sedd guyu ak yaakaar ju rëy lool ba tax na na may feddaliwaat sama jàpp ci yéen fideliwaat sama cofeel ci yéen ndax liggéey bi de jàpp naa ne man war naa fi nekk ànd ak yéen liggéey bi kon nag bu fi nekkee mën na ne ñëpp ngeen ko defal kon nag ñëpp amal nañ leen ngërëm amal nañ leen sant ci turu conseil départemental incha allah fas nañ yéene bu ñu fi yàlla indiwaatee déwén ñu indiwaat yeneen participation yu ëpp solo yi yi nga xam ne man man def nañ ko ndax li ñu def ren xeeb nañ ko loolu ndax suñu yéene ëpp na loolu. ndax li fi gis dafa rëy rëyaay boo xam ne nii képp ku fi ñëw rek yaakaar naa ne danga amaat beneen taxawaay bu am ci yéen loolu laa yàpp ne képp kuy jullit wala taalibe war naa ñëw seet si liggéey bi ñëw xool ko kon loolu maa ngi ci lancé appel boobu képp ku kilifa diine wala kilifa aada wala nga man autorité politique wala religieuse jàpp naa ne war ngaa ñëw ci barab bi ñëw ànd ak liggéey bi xool liggéey bi li ngeen fi def ndax liggéeyu lislaam la liggéeyu Sëriñ Tuubaa la liggéeyu askan bi la ndax lii ci wàllu yu ne rek boo ko seetee ndimbal la ndimbal la ci dëkk bi ndimbal la ci ci ci néew doole yi euh, ndimbal la ci ñi nga xam ne bëgg nañ bu baax ndax wu ma la xeeti teraanga yi mais conférence yi ngeen def ak xeetu maanaam xam-xam bi ngeen joxe fii loolu rek jar na ñëw tataan ko kon nag amal nañ leen sant amal nañ leen ngërëm bu baax a baax am nañ mbégte lool tey ji euh, di sant sëñ Babacar tamit yi nga xam ne tamit moo ñu sensibiliser bu baax a baax. pour ñu mu gën a ñëw naam sax daan nañ ñëw sax di participer waaye nag daawuñ dëkk nii waaye dëkk bi moom dafa nekk lu rëcc ñun kon nag ñu leen di bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw wute na lool wute na lool ni ma ko déggee jàpp naa ne man euh, liggéey bi demul nii yàlla <laughs> wax yàlla jàpp naa ne liggéey bi demul waaye bi ma ñëwee ba gis sama ba gis sama bopp liggéey bi daal kawe na sama jot daal maanaam ci ni ma gisee kon nag loolu ak cant la euh, ak ngërëm la yooyu yooyu ñëpp amel nag la wax. asalaamaaleykum wa rahmatullah wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi